internet Dakar Actu ñoo ngi leen di nuyu amaat mbégte bu baax a ak yéen ci émission bii di Actu Débat comme nuñ koy amalee saa su ne di fi dalal ay autorité de la République ñu fas une indi ay tontu ci suñu ay question par rapport ak actualité bi tey nag ñu am mbégte bu baax a baax di dalal ki nga xamante ne moom moo honorable député Nango Seck nekk député diaspora Europe du Sud honorable député maa ngi lay nuyu euh, maa ngi lay fay Daouda euh, di la remercier ci invitation bi. Mm. di am mbégte bu baax teew ci Dakar Actu euh, di nuyu internet Dakar Actu yëpp ak ñi ñuy suivre à travers le monde. Mm. alors actualité oblige ñu waxtaanee tey feebar bi nga xamante ni moom moo nekk Covid 19 coronavirus coronavirus bi mu melni honorable euh, Europe du Sud euh, mom bokk na ci rew yi nga wala département yi nga la a euh, en termes d'impact. deug actualité bi nga en Europe surtout suñu mm-hmm. Europe du Sud l'Italie, Italie Espagne. Mm-hmm. chiffres yi xawma ay chiffres alarme doy y la yu ëpp sax maanaam ci réew yoo xamee ni bu benn nit sax da daa faatu doon scandale mhm. euh, tey ñuy compter des milliers presque 14-15 mille morts yaakaar naa ni loolu ëpp na te jar na taxaw seetlu. Mhm. alors yow nga nekk député diaspora Europe du Sud nga représenté sénégalais yi honorable est-ce que mën nañ am situation sénégalais nu ñu fay dundee surtout à l'ère du Covid 19 waaw euh, D'abord, quand même dañuy wax rek ni sénégalais yi avant Covid 19 bi dund bu normal lañ doon dund Europe euh, ce qui sont régularisés ak même ñi nga xamee ni ci état de clandestinité Euh, yooyu nga xamni tay bu situation yu melni ñëwé euh, li ko gën a mittil mooy toogaay bi. Euh, confinement bi ci biir kër yi. Mm-hmm. euh, dematoo liggéey amatoo droit genn sa 4 mètres carrés yi le wër. Mm-hmm lolou ko xam dundu Sénégal nga xam ni dafa tàmm. Hmm. di dem di jaxasoog nit ñi di hmm. dem ci association yi di dem ci daayira yi. Hmm. tey bo xeye demato liggéeyi amato sa temps libre noo koy passé euh, day metti tok rek devant les télévisions et les micros euh, les appareils électroniques. di xool information dana metti tout à fait lolou mom ku ne xam na ni situation bu difficile la. mais ñu ci profito rek di leen encourager alors euh, mu mel ni Sénégal tamit euh, bokk nañ ci ñi nga xamanteni ñom la fièvre bi jot jotalal fofu ci extérieur est-ce que mën nañ am chiffres yi exactement est-ce que xam ngeen euh, yow sa département bi nga géré est-ce que xam nga exactement nombre de Sénégalais yi nga xamanteni ñom ñoo am coronavirus. wa heureusement nak sant yalla bu baax baax ku ne xam na ni euh fièvre bobu laalagul ñu bari ci doomu Sénégal. Mm-hmm. xamna buñ dé set dans sa totalité entre. Italie, Espagne, Portugal, presque une dizaine, de personnes sont -hmm. euh, qui sont mm -hmm. Mais amna, nous sommes en instance aussi, nous sommes en train de faire. Mm vraiment des sentir à nous, parce que dès que nous sommes en entre Espagne et Italie, il y a presque 30 000 personnes. nous avons moins de 10 Sénégalais, un mhm. nombre personnes qui dorme au Sénégal. entre Espagne ak Italie rek war naa mat deux cent mille sénégalais. Mm. donc loolu sant yàlla suñu borom la bi nga xamee ni euh, ba fi ñu toll ñuy ñaan sax mu yem fi. ci chiffre yooyu lañu la ñu hmm. alors mu mel ni Horizon sans frontières dégg nañ leen dëmb ñuy joxe ay chiffres trente neuf euh, sénégalais extérieurs yoo xamante ni jot na ñàkk seen i bakkan est-ce qu'il y a pas une contradiction par rapport ak chiffres yi ngeen joxe ak yu Horizon sans frontières. non moi j'ai parlé juste de l'Europe du Sud. Hmm. xaj na boo ci doolee France wala yeneen dëkk yi wala nga yëg ba Amérique fi mu ne hmm. parce que mu ngi fi commencé yegg. xaj na chiffres yooyu lay joxe mais Europe du Sud nous liñ ci je crois que ce n'est pas aussi alarmant que ça. Hmm. mais est-ce que l'autorité exactement de la république yi jot nañ euh, saisir la balle au rebond jox exactement chiffré, xam exactement nombre de sénégalais est-ce que nous avons liggéey ak cette situation Oui, mais il faut avouer que nous entre nous euh, ak les autorités consulaires et diplomatiques y un vide il y a un vide ça il faut ah le reconnaître vide oui il y a un vide parce que nous, ni les députés de la diaspora dafa dem ba day mel sax mhm. euh, peut-être contexte ni mu ci dëkk politique y a le poids politique qui pèse quelquefois mm. mais li collaboration bu bu bu mhm. parce que nous bokk terrain bi ñoo bokk diaspora bi ñoo bokk lu ñu bëgg. Mhm. te ñun ñëpp Sénégal lañ nous mhm. yaakaar naa échange yooyu waroon na gën a mën a euh, euh, ba tax na données am officiellement euh, bu lu officiel ñoom ñoo koy yor quelquefois mais nous ñu ko parce que nous ils transmettent directement au ministère des affaires étrangères xam nga la voie diplomatique quelquefois elle est plus contrôlée ñun nous sommes sur le terrain li nit nous dund daal la ñuy xam de quoi jëm transmettre par notre voix. mais en vous entendant parler donc vous n'êtes pas impliqué exactement si par rapport à la gestion par pandémie non ça il faut l'avouer Depuis ah. depuis pandémie il y a une cellule de crise qui ñu au niveau des affaires étrangères Donc, il koy a des rek mais ñoom euh, cest à cellule bi c'est une c'est au niveau de la diplomatie entre les responsables et les diplomates. Mm. mais à ma connaissance man suis député de la diaspora. Mm. et pourtant vous y a représenté population diaspora surtout vous, avez a leen gën a jege. li ma y a un vide parce que la crise commencé am la diaspora bi rek nga dem monter cellule au niveau du ministère des affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur automatiquement war nga les députés yi nga ñoo dans les zones les plus touchées mhm. ñu ñëw au moins par leur voix nous mën une indi seen contribution ci liggéeyu cellule bobu tout à fait alors honorable euh, yeen ñi nga xamanteni yeen séjour en cours ñoo ngi dalal tay si seen émission Actu Débat ki nga xamanteni moy honorable Nango Sek, don député diaspora Europe du Sud. honorable alors demb euh, le ministre des affaires étrangères def na conférence de presse yaakaar a suivre nga ko jël na ay mesures lu ci melni ben plan de contingence pour la diaspora 12 000 milliards yo xamanteni ñom lañ ko alloué noo gisé lolu oui, comme nous le matin ministre bi fait une déclaration mais l'après-midi il nous a reçus. Euh, les 15 députés de la diaspora plus des conseillers du conseil économique et social et d'autres responsables au niveau de la présidence chargée de la diaspora mais réunion a Gogoul, parce qu'on a juste fait 1 heure une heure trente de débat donc on va continuer waaw parce que xam nga affaire diaspora du affaire de ndaw xam nga fi Sénégal rek ngay dem ba mu ñu jël diaspora ni parcelle la diaspora c'est 3 millions de Sénégalais ci statistique yi ñu yor. Mhm. Euh, c'est un poids économique c'est une euh, c'est plus qu'une région. li ñuy wax ay quinzième région yi ñun dépassé nañ niveau. Mhm. kon dafa am prise en compte bo xamé ni dañ ko en considération manam mhm. complexité bi yaatuwaay bi ak li nga xamee ni mooy complexité bi rek pour mm-hmm. dire mm-hmm. parce que tey li réalité bi am Afrique bokkul bi am Amérique mm-hmm. bokkul bi am Europe Afrique du Sud noonu Afrique du Nord noonu tout à fait kon nañ jàpp rek ni traité diaspora c'est pas en une journée nga bëgg nga ko bëgg a def waxuma laa nag réunion boo xamee ni ça a duré presque 1h30, 2h maintenant daqaat nañ ko ba début semaine prochaine 12 milliards 12 milliards par rapport à la diaspora qu'est-ce que ça représente c'est rien donc da japonais jàpp tout tout tuuti Tout na par rapport à bu bëggee dimbali diaspora da nga war a toog évaluer évaluation bi moo vous a jiitu euh, ñuy chiffrer Nous la nun leen mën aider tey bu ñu toogoon ba évaluer la diaspora bi venir en aide la diaspora moo 12 milliards fu ñuy ji fonds mhm. dañuy demander mhm. donc ils ont mis la charrie avant les bœufs mhm. yooyu D'abord la consultation Nous, nous sommes des représentants légitimes mhm. de la diaspora des élus Nous avons une nomination les élus nous dem vote gagner un département mhm. gagner une zone où la diaspora ces 15 députés méritent beaucoup plus de respect que nous leen bëgg traiter dans ce pays mhm. est-ce qu'il que yaakaaroo ñoom nous am données donné tamit honorable Oui, mais même si nous avons donné, nous avons une diplomatie du ko dafa am lo xam diplomatie du ko joxe ñoom des am des limites. canon am limite ñun nous sommes des députés amuñu une limite dans ce cadre pour voir la vérité la réalité sur le terrain wax li askan wi dund ñun amuñu ci limite ñom peut-être pour des raisons parce que ku ci nek ya nga xalaat mercredi décret wàcc ci sa kaw am na limité woo ci wax ak say kilifa

en considération mais nga segg ci li nga xamee ni tey boo ci réagiré di nga atteindre ben objectif mm-hmm. je crois que fofu la toll kon yeen ñata ngeen doon xaar exactement ñu jox diaspora bi non dégo li ma wax ko évaluer tant que ñu ci table set li nga xamee ni moy mm-hmm. conséquence virus bi parce que virus bi mu ngi nek en cours tout à fait après virus bi lan moy am crise économique day am mm-hmm. les la les conditions sociales dafa mën a bàyyi xel les conditions économiques de nos compatriotes. Mhm. loolu c' est après coronavirus. Mhm. du nag ni nga xam ni da ngay ñëw comme sapeur pompier. Mhm. sapeur 12 milliards yi mën nañu ko jàpp comme 12 milliards yi sapeur pompier. <laughs> ah oui Bon, fait lakk gi ba pare. Uh-huh. léegi lan ne woon foofu lan nga koy lan nga koy téye lan moo fay ne. Hmm. pour résister. mais mais c'est à saluer quand même euh, geste bi. waaw mais que des Sénégalais nekk en situation de précarité nga ñëw leen. waaw mais xam nga Sénégal boo ah. yëkkatee dërëm saraxe sax ñu ne saluer geste bi. Hmm. loolu ba tey baax na. moo maanaam sarax ki nga jox saako ceeb ak ki nga jox kilo ceeb sarax la rek. Mm-hmm. yàlla moo xam. Mm-hmm. ban niveau la koy évaluer. Mm-hmm. mais li ma ta bàyyi xel moo di jaspora booy wax ak ñoom dafa am nooy wax ñoom dafa am fooy taxaw. ñun duñu ay dof ay. kuñ dem xam nga ni diaspora c'est pas facile. tout à fait du ba du ab quartier fii de wala muy ab département boo xamee ni appuyé par les trucs là nga dem ñu voté la déedéet. il faut être un du terrain. fii tey les députés de la diaspora yi teew fii c'est des hommes du terrain dañ ko ñefe ba dara dul dara koo ci gis tey ñu élire ko ba muy doon nit di dimbali nit ñi booba xamul sax ni député dina mës am kon yàlla moo dox ci jamono ba députation am ñu candidat ñu fal ñu ñooñu dañoo am mérite boo xamee ni dañ leen ko war a bàyyal di leen déglu. bu ñu bëggee réussir leur mission. d' accord alors honorable si yeneen xeetu décision yoo xamante ni autorités yi jël nañ ko bokk na ci répatrier li nga xamante ne moom moo nekk corps sénégalais yu décédé si coronavirus bi duñ leen indiwaat si réew mi nan ngeen gisee décision boobu en tant que représentant des sénégalais aussi euh, la diaspora Europe du Sud surtout. waa décision boobu moo ñu gën a métti sax. ci ah jamono fi ñu ah toll. ah oui honorable waaw parce que teguwul fenn. lu tax. ñun dañoo am gis nga li ma doon wax léegi ni ñun ay nit lañu. luy gaañ Sénégal xalaatuñu mu dugg fi. luy gaañ benn doomu Sénégal xalaatuñ mu dugg fi quelles que soient les circonstances tey bu ñuy wax waxi néew. man suma page Facebook dem ba tey maa ngi publier. Euh, ay données ci nit ñuy traité ku ñu war a indi Sénégal. ça veut que tey bu ñu ñëwee ci coronavirus. naka lay wàllee. wàllu coronavirus yëpp virus bi mu ngi jógee à partir xam nga contact yi. Mhm. mooy maanaam liquide. c'est vérifié parce que ñoom ñoo joxe données yi. Mhm. man je ne suis pas médecin. Mhm. mais je peux me baser sur des données yoo xam ni borom xam-xam yi ñoo ko wax. honorance les services funèbres yi nekk Italie. attest attestation baa ngi nii lettre baa ngi nii ñoo bind ni c'est possible. c'est possible même coup dee ci coronavirus. te li may wax ni un autre médecin. Euh, wax waxat na ko démb ci réseau yi mu en France j'ai oublié le nom wax na ni c'est possible parce que le conseil français dañoo jëkkoon a interdire ni ku gaañu ci corona bi kenn du la laal mais ils sont revenus en arrière sur les décisions parce que dem nañ ba ci biir scientifiquement ñu démontrer ni corps boobu fekk laaloo ko wala nga laal liquide bu ci jógee amul benn contamination léegi nag mu ngi dépendre ci ki wàcc liggéey naka lañ koy traité avant ñu diko mettre à destination pour muy voyager loolu yep, bu ñu les garanties nécessaires qu'est-ce qui doit empêcher que corps boobu wara a Sénégal ñëw ci mbokam ñu dëj ko denc ko denc ko fiñ ko bëgg denc pas ñu diko ko denc en Europe nga xamni amné circonstances dañuy ñëw maasale bàmmeel bi utiliser ko pour d'autres fins say mbokk dootu ñu xam fo muju yoy c'est une réalité suñu réalité la et puis dañu c'est c'est le droit wala ñu lak leen

Il li a pas de risque. Ah ñun corps yi ñuy déjà dans leen sang ak des conditions de euh, sécurité sanitaire yu sëkk. Mm. parce que ñi leen di sang aussi demuñu di wanteer tout à fait ay sénégalais lañ. Mm. ci ñun la ñu ay imam lañ ñu nekk foofu. Mm. dañuy jël sol li sol sol i sol ay protection dem defar leen ba ñu jëkk leen comme ni def sang leen def mettre leen à partir de de ce moment mettre à la disposition des services funèbres. Hmm. services funèbres bi ñooy jël néew bi def ci la ca war ci ay produits. Hmm. ëmb ko ci carton boo ci emballage yu aluminium. Hmm. boo xamee ni dañ koy suude xam nga fer bu ñu suude ab air walla ndox mënu ko traverser. hermétiquement lañ koy fermer. ak contrôle ya ca war yëpp. buñ paree kersu. Euh, aluminium bobu ñu duggal ko ci caisse bois mm. ak la koy ëmbaat yépp mm. doog ko mettre en voyage mm. kon kooku bu ñëwee fi ñu jël caisse bobu yóbbu ci armel denc ay mbokam xamni fi la diw tëdd ñu di jaar diko ziar loolu ban danger mo ci ne fi ku fi gañu dal lay sul même ku fi ver coronavirus lay dal lay sul kenn du la sànni ci mbedd mi. ay nit ñoo def. koor mm-hmm. yooyu ñew na nit ñoo ñu jël les prédispositions dem def la ci war pour denc ko dans les règles de l'art. alors est-ce que yaakaaroo tamit euh, yoy yep li nga wax euh, processus bobu buñ ko naré respecter est-ce que du ay dépenses de plus dans un contexte bo xamanteni ni ñoo ngi ci crise économique est-ce que néew lool lay. autorité di soralé ñi jël décision bi mësu ñoo dépenser ci suñu néew ñun yalla dimbali nañu. Ah depuis belle lurette. Ah ku wàcc dans la diaspora. Hmm. les associations nous lay jël en charge. les associations les daïra ñoo ñoo yor ay caisse yo xamé ni ci social la jëm ku ci la euros pour social. new bu fi mësa ñoo la dégg les consulats là ñoy financer ay Nous budul amul ah que ça soit clair. xaalis bi ñuy wax ni def nañ ko ci rapatriement corps yi defuñu ci tous. nañu dem recontrôler seen xaalis boobu ñuy def ci social. ñan ñoo koy def exactement kon. consulat yi ñoo xam fu ñuy def seen xaalis mais defuñu ko ci néew yi. combien de fois lañ leen demandé aide ñu ne argent amu fi. kon da nga jàpp da nga soupçonné benn genre détournement boo xamante mais bien sûr détournement d' objectif ci caisse sociale yooyu ñuy wax am na ci. nañ dem contrôler seen xaalis fan lañ koy def ak ñooñu naka lañ koy utiliser.

mu jaral leen ñu jël avion dem jëli ab néew indi. kon où se situe le problème avec cette décision décision bi nga xam ne jël nañ ko. mais amul base amul benn moo tax ñu contesté ko boo gisee coow li bari mooy dañoo jël décision sans ñu xam la réalité sur le terrain mais bu ñu laajoon ñu wax leen comment les néew yooyu ñuy wax dépp yooyu naka la ñuy voyager naka lañ leen di mettre en caisse avant ñuy ñu di leen transporter tubaab bi dofuñu néew buy wàll tubaab bi duñ ma ko jox man. Mhm. ak lu ñu bëgg bëgg jamono et puis boobu risque sax ñoom ñoo ko dul jëkk def. tubaab bi ku ne xam ne ni seen xarañ ci médecine du ñu jël am néew boo xamee ni dafa contaminé di ko mettre naan am à disposition pour nga def ci la ko war déedéet. d'accord même bu ñu dee jël matuwaay ñoom ñoo koy jël. Mm. ah alors honorable euh, beneen situation boo xamante ni moom la sénégalais yi nekk di dund jamono ji mooy euh, ak crise bi crise sanitaire mondiale bi ñu bëri dañoo dawee Europe di ñibbisi si Sénégal am na ñoo xamante ni jàpp nañ leen si frontières yi tout récemment dégg nañ le directeur de Sénégalais de l'extérieur pour ne pas le wax ne ñi nga xamante ni ñoom lañ jàpp si frontières yi logé nañ leen si ay hôtel et dinañ leen toppatoo est-ce que yéen euh, fexe ngeen boo xam ban situation la sénégalais yooyu nekk. ñu ngi jokkoo ak ñoom. ñu nga xamee ni yàlla dogal na ñu daw ba ñëw ci frontière senegal dañ leen a war a jëli ay doomu Sénégal lañ. nit ku ne boo jaaxlee sa kër ngay daw wuti. tout doo daw wuti kër jàmbur boo fa demee dañ lay génne ñooñu bloqué wu ci frontière yi nañ ay doomu Sénégal lañ minimum de droit booy mën a indi ci doomu aadama mooy tette leen jël leen faj leen ku ci feebar nga faj ko bala muy dem këram. Mm-hmm. koo ci am suspicion ni war na am.

pourquoi ces pays-là di engagé wu à ce niveau. dem est-ce que nous tamit ñoom ñoo ñu ëpp doole. du affaire doole ndax ñuy. est-ce que tamit ëpp ñu moyens financiers. surtout ñi bëgg a ñëw ñooy fayal seen bopp billet man ni ma xam fi ñu yor carte d'identité ñu yor des passeports italiens dugg ci vol bobu ño fayal seen bop billet. kon Sénégalais yi bëgg ñibisi la ñu ñu fayal leen billet. Hmm. nañu ubbi frontière wutal leen ben ben

mettre les en quarantaine seet ku ci feebar ku ci feebarul ñu doog la teg ci yoon. Hmm. lii mooy dëgg. waruñu leen a bloqué di leen bàyyi ci àll bi ñuy tumranke ba naan dañuy xiif mar c'est pas normal. alors euh, honorable euh, député Nango Sek euh, député nga ci assemblée nationale Du Sénégal. Mhm. Euh, tout récemment voté nañ projet de budget réhabilitation sociale. Mhm. bu Covid force Covid 19 à hauteur de 1000 milliards de francs CFA Amna, na ay député say morom euh, ne duñu voté projet de budget bi yow d' sa réaction par rapport à votre projet de budget boobu. waaw xam nga assemblée nationale aussi ba léegi épreuve de force rek moo fa ah oui oui. cette majorité non non c'est pas d'autre, trop nous sommes à l'assemblée nationale foofu lu ñuy dund xam nañ la fa xew. Ah cette majorité mécanique du pouvoir moo fay régner. Hmm. y' a pas d'autre autre démocratie bi dañ koy calculer dañ koy natt <laughs> tey ñun moo ñu li am le président de la république Macky Sall amul benn pouvoir bu ko assemblée mës a xañ hmm. ba di ko ci dollil beneen di ko ay pouvoir il a toujours usé de ses pouvoirs là moo le la mu bëgg sax moom mooy liy jàll assemblée comme lettre à la poste kon yi ay procédure le rek pour naxasal nit ñi pour euh, gëmmal sénégalais yi jaar ci seen kaw parce que amul utilité. ah oui lam def rek lay def ba projet de budget bu toll ci 1000 milliards jappelé askan wi nga né amut. ben importance. projet de budget bi xam nga lu ko ëpp doole. Hmm. mooy ko nañ jox la lépp. le fait que ni ko nañ jox la lenge est-ce que le contexte est ko laaj aussi. non ban contexte Le contexte bi mais passé. Covid 19. Covid 19 day passé. et l'expérience et l'expérience que nous avons eue avec le président Macky Sall.

ci alalu réew mi fu ñu mujj ba tey ce sont les mêmes rats-là ñoo nekk tout autour. mais est-ce que yaakaaru leen euh, contexte bi ñu nekk crise sanitaire mondiale réew bu nekk solidarité baa ci biir ñuy joxante loxo ngir doon benn xeex feebar bi est-ce que jotul ñu def ko tamit. mais gis nga Sénégal fii. Mm. même en temps de paix normal normal solidarité bi dafa mës a exister bu ñu bàyyi ba nit ñi nekk ci ak jaaxle ñu di ñu indil ay notion di ñu jéem a jox ay leçons de morale ñun réew mi kenn gënuñu koo bëgg. ah oui

déedéet. Mhm. plein pouvoir yi ñuy joxé teguwul fenn C'est de la pure politique. Mhm. te on va voir gis nga fi mu ne coow li tu vas regarder les télévisions et les autres euh, trucs lan ngay gis ku ci nek ya ngi profité di filmer say madarak, di filmer say <laughs> produits yoy séddale c'est de la politique. Mhm. quoi qu'on dise. nous, nañu reconnaître les faits. parce que la ngay def. ngir au delà de l'acte social. non au delà de l'acte social dañ ko orienté vers la politique ce sont nos aimables politiciens là euh, mes collègues. nous profitons d'une situation pour poser ces actes. mais cela, nous pouvons ko accepter ci niveau mais à un niveau national Makissal, Macky Sall sur le plan politique nelawul. ah D'accord. 65 euh, milliards aussi nous ont ni l'aide euh, aide alimentaire euh, gouvernementale nous les familles les ménages les plus démunis loolu tamit fait tout ah mais non c'est ndimbal la alalu mais c'est 10 milliards Oui, la mais d'accord. milliards mais nous, nous avons voté pour 1000 milliards parce que 1000 milliards programme hmm. on va suivre maintenant comment ça va se passer. naka la def ba mu dugg ci kees boobu naka lañ koy pour nit ñi des questions qu'on va se poser mais nous, aussi en tant que sénégalais nous am naka lañ koy doxale naka lañ koy séddale nak est-ce que objectif yi ñu bind tey ba nit ñi nangu ko ce sont les mêmes objectifs ci terrain bi loolu mooy solo si moo tax mu war a am benn moyen de contrôle de l'État bu waroon a taxawee na mais ñun ñëpp bu ñu simmi ko bàyyi benn pouvoir bi rek muy def lu ko neex en plein euh, ci lépp kon musiba day am parce que l'expérience après 8 ans de gouvernance je ce qui se passe chez nos amis apéristes mm. alors euh, Nango Sec... au-delà de casquette député Bingayore, nous un ancien policier radié <laughs> entre guillemets <laughs> ça te fait rire ancien policier ah mais oui C'est une fierté parce que c'est à l'Assemblée nationale qu'on avait voté notre radiation on nationale comment ça fonctionne euh, mbégte lay doon xamni ni ndogalu suñu borom mom nit ki mën nga ko jéem sacrifier waye yalla na ci yalla and c'est très important kon buñu del ci assemblée tok fa en tant que ancien policier radié <laughs> euh, euh, plaisir lañuy jox bu rëy rëy rëy ñu mën ko dundat mhm. ndax day jàngalaat nit ñi lu bëree bëri ci aduna ancien policier radié Sénégal nguur gi le président Macky Sall jël na ay mesures décrété état d'urgence waye tamit couvre-feu en tant que ancien policier no gisee décision bobu wa mais comme jox nañ ko kay <laughs> wax yalla def dañuy di constater couvre-feu euh, état d'urgence bi ci exagération yi ci les citoyens sénégalais parce que amna ci ño ni da ngay ci autoroute bi wala ci national bi bu 6 jëm 7 da ngay gis ni daw mm-hmm. di par manque de moyens de transport ba pare nag ak ragal gu nekk ci seen dënn di tiit ndax wittee heures dina leen fekk seen kër ndax kenn du leen toroxal yow mën nga xam ni Sénégal mën na nangu lépp ba mu des ku ko toroxal ñu ay dóor de dañoo ragal ku leen toroxal te nit ki mënoo ko atteindre ci honneur am ba tooñ ko ci kaw légalité ba pare toroxal ko loolu la sénégalais yi ragal ba bu ñu juum fi mu ne am na sax ñu koy bàkkoo naan dóor yi baax na ci mais c'est grave c'est grave ngay jël lu des services de de sécurité. Mm. ñuy traiter nit ñi le citoyen de cette manière nga taxaw ci radio diko ko rafetlu naan dóor yi na ci te yow les moyens qui devaient suivre les les mesures d'accompagnement ne sont pas remplis parce que nit ki boko ne da ngay dem da ngay wacc cinq heures war nga mettre à sa disposition des bus des cars yo xamné bu wacc mën ko yob mm. mais un nga ni car yi day ngeen don yàpp nit ñi don taxaw ci mbedd yi tay ngeen leen dis ngeen di yàpp même ces mesures là les transporteurs là sont des complices de ce régime mais ko nangu. yow nga ma cinq car ils nga ni ko dix nga 10 mais demal gasoil bi. nañu wàññi gasoil bi nit ñi ci transporter les sénégalais à l'heure mais man ma 10 ma Dakar di ba ma tardé ci parce bi ndax suis 10 yegguma sama kër nga dab ma foo jëm man la damay ñibbi nga simmi sama mbubb toroxal ma ci sénégalais loolu rafetul. alors est-ce que loolu tamit euh, ça ne nécessitait pas benn genre campagne de euh, communication surtout du côté des forces de l'ordre ñu sensibiliser leen xamal leen seeni rôle exactement est-ce que. dafa laajoon sensibilisation ak des mesures d'accompagnement ak tolérance fii tey Sénégal kañ lañ gëj a dégg couvre-feu. yàgg na am na ci ñoo xam ne mosuñu koo dund. tout à xale yi ñuy wax ñuy génn ci mbedd ñi xamuñu luy couvre fa gannaaw bi lañ judd. Mhm. màgg ci diggante bi xamuñu luy couvre fa donc bu génnee di manifester ça veut dire que ñii xamuñu dañ leen a war a xamal suñu moyen de communication yi ñu jël téye ko ci seen bureau yi di génne ay wax yoo xam ne amul benn sens la RTS surtout je vais nommer ça na na bi mu waral liguey pour sensibiliser nit ñi. na ci jublu xamal nit ñi lan moy couvre-feu. lan moy état d'urgence nit ñi revenir dans leur droit parce que nit ki boko ko ay droit mu xam ay devoir mais boko ko ay droit diko di xaar ci devoir donc ko mës gis confusion lay indi nañ utiliser les médias de l'État mu dem ci en sensibiliser les populations les plus démunies ñu xam lan moy état d'urgence ci yane condition la lan la ci loi tek lan la ci loi teggi mais japp ay nit di len filmer en tant que euh, ay homme de homme de loi di leen pompeloo ci mbedd mi di len wax ay nan c'est manquer de respect aux Sénégalais et loolu le premier citoyen sénégalais mo ci warona a tankam tànkam. ne leen rôle autorité yi tamit lan la ci rôle autorité yi nga xamante ñom ñoo force de l'ordre surtout. c'était de sanctionner loolu bo gisee say élément def ko da nga len wara sanctionner ni leen lii pas normal bu mu amati bu leen toroxalati benn doomu aadama. sanction bi nan ak lan la war a non sanction bi bu amee ay mesures d'accompagnement ndagam sanction sax parce que le rôle de la police euh, c'est la prévention. tout à fait bu ñu ko fàttee ñun ay alkaati lañ jàng nañ ko. da ngay prévenir avant ngay réprimer te répression bi sax bala moo am ki ngay prévenir. Hmm. résister devant un homme de loi bu nit résister di jaay la répression mën na ci am yoon mais mënoo rek même yow na nga nga ne diw rek ñu c'est pas normal c'est de l'abus lool les autorités ñom ñi nga ni la autorité parce que mboobu autorité yalla da koy des ah. da la koy pour ben moment ëlëk mu jox ko sa morom gannaaw ëlëk mu jox ko sa morom kenn ci ñun bëggul nit autorité nit abuser de l'autorité de la toroxal. c'est pas normal àdduma ci. Ah, honorable député c'est une émission bi jeex Juste juste dernier mot booy adresser surtout sa euh, communauté Europe du Sud diaspora. ah La diaspora bi moom que nous sommes na ne ñun diaspora Nous sommes moodu moodu mhm. donc gis nañ Sénégal nous avons une stigmatisation bi <laughs> subir nañ ko ci ñaar. tey ñun ñoo jëkk subir stigmatisation bi ndax bëggatuñ ñoo naka la ab préfet di yabale ay agent ci kër ab moodu moodu bu mu dégg rek ni ñëw na ñibbisi na dem di ko seeti pour jëli ko jëm ko contrôler xam nga loolu mooy abus ak ñàkk xam sax lan mooy valeur doomu aadama te sax c'est produit à Mbacké ci suñu benn compatriote ak yeneen ak yeneen donc yooyu nañ ko moytu nañu moytu du dugal nit ñi ci gaam boobu xam nga. bi virus bi doog a génn Touba dañu dafa am ñu génn ay waxkat. wax ni virus bi day génn Touba nekkul Touba. dañ leen jël yóbbu leen gendarmerie. tout à fait leen. ki jëkkoon a wax waxi Moodu Moodu wala stigmatisation bi jëm ci Sénégal de l'extérieur. dafa waroon a teeri gendarmerie. bu ko defee nit ñi xam ni droit yi moo am fii moo am fële respecté nañ doomu aadama yi ñëpp ñëpp sénégalais lañ au même même niveau d'égalité. bu ko defee ñun suñu citoyenneté day daal di feeñ. mais bu ci état àndee ñuy jël télé yi di sketch ba di théâtre théâtre yow moo xam day bund xatal moodu moodu bi da koy xatal. ci xolam da koy métit loolu teguwul fenn dañ ko waroon a sanctionné la ca des nag mooy moodu moodu yi tey man message ma leen di mooy gis nañ Sénégal ni muy doxe nañu xamaat fu ñuy teg seen tànk ëllëg euh, Covid bi day jeex. day jàll ñun nañu waajalaat suñu bopp. xam nu ñuy taxawé en face de nos dirigeants muy état bi nga xam mo moo ñuy diriger en face de notre communauté muy Sénégal gi ñu fekk ci nga xam ni yàggul tuuti ku ni sa doom moodu moodu la nga genn defaraat sa musóor di am mbégte tay bu la né sa modou modou nga bëgg a dugg ci sa biir rondal di nëbbatu defe ni daf lay indil feebar daf lay indil dé lolu rafetul rafetul ci suñu digënté donc le message bi ñu avons message parce qu'il traverse des moments très difficiles xam nga 4 mètres carrés yi la ni ko sanctionné nga fay ay taxes amo droit dem fépp ci Europe metti na ci doomu Sénégal donc li ñu nous di ñaax daal ñu muñ suñu borom suñu ci jaamu ci bi jaamu ci euh, ñun ñëpp ñu dund ba diko netali euh, di leen encourager di leen ñaax xamni ñun suñu position moy liñ ñu fi yabalé moy xéxal leen défendre seen i intérêt défendre seen i droit te ci loolu lañ nek mo waral tay